jaajëfal nañ leen mbokk yi nga xam ne yéen a ñuy teewlu ci di TV ñu dalal leen ci xibaar. ñu wax ci lu ñeel kii di El Malick Ndiaye moom nag ginnaaw ba nga xam ne euh, daat na euh, def ab post ci fi nga xamante ne si moom moo di euh, Facebook am di wax sénégalais yi nga xamante ne si ne ñi ngi xool li nga xam ne moom moo xew ci Sénégal jamono ji ab injustice boo xam ne kii di président Macky Sall ak gouvernement am waaye itam ak justice mi ngi koy tekk ñii di waa Pastef rawatina ñi nga xam si ne ñoo di leader yi ak contrôle bu métti bi nga xam ne Euh, ñu ngi koy contourner leen ci leader yi nga xamante ne si ne nekkuñ ci purisme bi waaye euh, soriwuñ ñoo xamante ne si ne ñoom ñoo nekk ci purisme bi loolu nag nekk kàddu yi El Malick Ndiaye moom El Malick nag nga xam ne euh, lii di waa Pastef ñoom nag ginnaaw ba nga xam ne daal dinay def ab poste di lim yi nga xam ne daal nañ leen di tëj ci kaso bi ci nguur ko président ki Sall waaye itam nekkuñ ay militant waaye itam ay responsable lañ ci fi nga xam ne moom moo di Pastef moom El Malick nag muy xamle euh, ñu ci njëkk moom moo di euh, ki nga xamante ne si ne euh, moom moo di Bassirou Diomaye fay mi nga xam ne moom moo nekk secrétaire général de Pastef waaye itam ak ki nga xam ne moo di Fadilou Keïta mi nga xam ne moom moo di membre coordinateur bu Pastef bi nga xamante ne moom moo yoroon Euh, moom moo yoroon euh, li nga xam si ne moo di euh, nemmiku tuur bi nga xam ne moom la président Ousmane Sonko doon def moom Fadilou Keita nag mi ngi nekkoon membre di coordinateur bu Pastef moom nag moom it daal dinañ koy boole ci liste bi waaye itam ak Alioune Badara mi nga xam ne moom moo nekk membre di cabinet di président Ousmane Sonko waaye itam nekkoon ki nga xam si ne moom moo nekkoon coordinateur wër ndomba ak Babacar Ndiaye mi nga xamante ne Euh, moom moo nekk euh, président mouvement euh, national des jeunes jeunes de postif moom moom it daal nañ koy arrêté moom it naka noonu it ak ki nga xam seen moo di moom Mouhamed Bilal Diatta mi nga xam ne responsable Pastef Kër Massar la waaye itam nekk maire bu Kër Massar ak Serigne Assane Mbacke mi nga xam ne responsable Pastef bu Touba la ak ki nga xam ne Euh, moom moo di euh, Keba Diakité mi nga xam ne daal nañ koy jàpp moom tamit mu daal di euh, nekkoon adjoint de Pastef les Patriotes ak ki nga xam ne moom moo di Mathieu Diop mi nga xam ne coordonnateur JPS Tiwaawoon la ak ki nga xam ne moo di Abdou Karim Bey ñoo ñëpp ci lañu bokk mi nga xam ne Abdou Karim Bey mi nga xam ne responsable Pastef Rufisque moom it ak ki nga xam ne moom moo di Bada Diaw ak ki nga xam ne moom moo di Bintu Samb ak ki nga xam ne Euh, moom moo di Ousmane euh, ki nga xam si ne moom moo di euh, Baba Thiam ak ki nga xam ne moom moo di ki nga xam ne moo di Abdou Aziz Abdou Aziz Joxaane ak ki nga xam ne moo di Abdou Aziz ki nga xam si ne moom moo di Abdoulaye Sow ak ñeneen ñoo xamante ne si ne daal nañ leen di arrêté waaye itam moom El mooy muy xamle ne ki nga xam ne ñi nga xamante ne si ne it daal nañ leen di. Eh, teg ci contrôle bu métti métti ñooñ nag ñoom ñoo di eh, bi ci njëkk moo di kii di El Malick Ndiaye ak ki nga xam ne eh, moom moo di Waly Bodian ak maam ki nga xam si ne moo di maam Bint Jiba ak ki nga xam ne moom moo di Astou Sène Astou Sané ak ki nga xam ne moom moo di le président Ousmane Sonko maire bu soor moom tamit ci la bokk ak Birame Souleye Diop ak ki nga xam ne moo di Abbas Fall ak Omar Fall waaye itam ak euh, ñi nga xamante ne si ne mooy euh, militants yi Pastef yi nga xam si ne ak sympathisants yi nga xam ne euh, moom El Malick mi ngi wax ne toll nañ ci cinq cent personnes jàpp six cent yoo xamante ne si ne dañ leen di jàpp ci lii di nguurug président de la république Macky Sall mu ne nag lii lépp nag boo ko limee moom moo nekk bilan président Macky Sall ci waa Pastef ak justice bi nga xam ne euh, dañ koy instrumentaliser waaye itam euh, di ko euh, tekkat muy ordonné ñi nga xam si ne ñoom ñoo di waa Pastef di leen surveiller ci seeni activité ak seeni poste yi nga xam ne ñi ngi koy def di leen jàpp di leen denc ci kaso bi loolu nag kenn mucc ci ndaxte ci leader yi la commencé di lawkat ba dugg ci ñi nga xam ne euh, ñoom ñoo di militants yi ak sympathisants yi nga xam si nag képp koo xam ne am na benn liaison ak kii di euh, le président Ousmane Sonko loolu nag nekk loo xam ne kii di El Malick Ndiaye daal dina koy naqar loolu waaye itam di naqarlu tamit euh, contrôle bi nga xam ne ñu ngi koy contrôler kii di euh, président Ousmane Sonko ak ki nga xam ne euh, ñi nga xam si ne ñoo di membre yi Pastef yi nga xam ne ñoom ñoo nekkee ci Pastef ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di militant yi nga xamante ne si ne jamono jii dañ leen di nëbbu jant bi loolu nag nekk loo xam ne El Malick Ndiaye daal di nekk koy yëkkati wala mbokk ñu leen jox dig daje ci yen xibaar leen wax na ngeen abonné te activé cloche de notification bi pour bépp vidéo bu ñu dugal ngeen bokk ci ñi koy njëkk a